asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 29 mai 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag tey jàppal suñu làmb xëyati tey ñëwati yëglekaay ba nag tey dafa ñëw mu mel ni olof njaayee ko daan wax tontu moom du forox mu mel ni tey daal waa kër Modou Lo ak tafaatin ak waa këram xëy nañu di tontu Zil Balde wala boog Ama Balde wala sax waa Pikine bu dee waa kër Modou Lo la moom ka xëy di wax mooy Serigne Ndiaye Serigne nag tey moo xëy ngar daajoo yëgle biir sunu làmb daal wax fa lu ko la mu bëgg a wax tontu daal def na ko ba mu saf moo tax yëgle bi ne day source wu Modou Lo bii day tey moom génn wax la mu bëggoon a wax lool sorti boo xam ne day bum la def Serigne Ndiaye nag la mu jëkkee daal nee na Ama Balde moom. tokaar la tokaar la boo xam ne daal day wax rek yoru làmmiñam di wax waaye bis a ngi ñëw dina xam te sax moom Modou Lo du moroomam te du màppandoom tokaar daal la ko jàppe moom mii nga xam ne nii moo di Serigne Ndiaye loolu la xëy tey wax kii nga xam ne nii moo di Ama Balde ñu ne ko diggante Modou loo léegi nag ak Ama seen mu ne Ama seen day moo la gën a xam ne moom xam na la koy xaar bu baax a baax te ne na day wax rek yorul fit woo xam ne nii sax may na ko mu jàkkaarloog Modou Lo ci bët ak moom Ama Sène naan day dox ci Serigne Ndiaye nee na bis booba day su ko defee ca lay xam ne day bi yàlla julli kese kese la santub jullit Serigne Ndiaye daal tey xëyee na waa Pikine wax na leen loo xam ne ni daal lu leer naññ la ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb Eumeu seen ne na ku xalaatu dox ci kaw Modou Lo waaye leen loo xam ne wax na ko nee na Modou loo itam jàpp leen décision moom jël na ko nee na ku décider la ci combat bi nga xam ne day jëm na ci mu mel ni ki daal tey moom Serigne Ndiaye xëy yëngal ba mu yëngutu keneen koo xam ne itam xëy na rek duggaat biir moom itam mu mel ni kon tey xëy tontontee fa am tafaatin tafaatin nag moom zilbal lay waxal nee na moom dey na xam ne man mag laa ko def dama koo jàppe comme ni ma jàppe sama entraîneur am bi waaye nag li ma gis ci moom mooy ndox mu màndi ginaar nekkul ci ci bopp bi tafaatina xëy di wax loolu Jules Baldé du samay wax tafaatin daal nee na Jules Baldé su waxee moom da sax bëgg dugg ci suuf si ndax moom li muy wax du ko teg ci aw yoon te li ko neex kese lay wax te moom nee na na fàttaliku man sama poulain jàpp na ko fii daan ko jël bu rëy moom Jules muy Birahim Junior loolu mooy waxi tafaatin loolu daal xëy na tey di ko wax nee na nag li leer ba leer dey na wax lu ko neex rek waaye man sama combat ak kam ji nga xam ne nii day moo di Ama Baldé na jàpp ne man du lu yàqoo ci man nee na promoteur ba ko bëggoon dox na ko muy Pape Abdou Fall yónni ay nit ci sama manager wala sama agent muy ki nga xam ne mooy Papa Thioune nee na ka mu yónni woon Kànji la Kànji production ak Fallou Ndiaye borom Ndiaye production ne na ba ñëwee tamit waxtaan nañ ba déggoo ci kaw yi kàddu ñu nangu combat ba ne na nag bu combat ba amulee kay promoteur bi la kon bu fekkee Jules daa am lu ko naqari wala lu muy dox toog ñaxtu di ko wax na dem mu waxi ko ak Pape Abdou Fall te man Tapha Tine mu noppal ma bés bu ñu waree bëre ma ak Ama dina dinañu bëre waaye suñu warte bëre itam duñu bëre nee na est-ce que man bëre ak Ama Baldé rek moo fi nekk daal may loo xam ne dama ciy xëy di ci goon nee na loolu nekkuma ci tey suba waxi noppi ñu ne ko waa année balance dafa ne loolu jaaxaluma année balance moom yàgg naa koo def te mas naa koo def 2014 dal na ma te bëri na mbir yu muy dal nee na soo amee itam leneen mënuñu ca dara xanaa kay xaar rek ba sunu tur jot nu bëre mu mel ni kii daal tey kon tafaatin moom xëy na tontu Jules Baldé ba mu saf sàpp sàpp waaye ba mu ca pare itam ensemble ba nga xam ne nii day moo ko géré moom tafaatin mu nga xëy di wax moom tamit day moom El Hadj moom nag la mu xamal kii nga xam ne nii day moom moo di Ama Baldé nee na moom bunt ba mu jaar ba ci kay lay wër waaye nag loolu moom yëggagun ca kii nga xam tamit mooy Papa Thion ba tey mu ngay wax nee na Jules Baldé moom jarta waxal waaye moom nag boo bëggee dégg-dëgg du la topp joo gis sax Papa Thion nee na fa ngeen jëm a soriwul ndax moom Jules mu ngay wax rek moom daal wax daal fi mu nekk nii moom la tippoo keneen koo xam ne nii moom mu nga xëy di wax moo di bàyyi ngañ mooy entraîneur écrit yoof moom ka muy waxal mooy kéwél nee na ko kéwél day yow jàppal ne lii ma lay xamal mooy moo jëri ne la visé te bu la visé dina la jàpp te bu la jàppee dina def loo xam ne day boo ci jógee di nga xam ne lépp dëgg la bàyyi ngañ moo xëy tey di laaj noonu jëmale ca kanam mbërëm keneen koo xam ne moom fa muy raj jëmale mooy ci kanam mbër yi nga xam ne ay ancien international lañu moom booy Kayre mi fi nekkoon président des lutteurs en activité Kayre nag xëy na tey ña muy interpellé mooy nguur ak réew mi rawatina ko ku jiite di président di président Macky Sall Kayre ne na leen dey yéen état bi yéen laay waxal fexe leen ñi nga xam ne ay mbër la ñu woon nekkoon fi ay ancien international ngeen jël leen en charge maanaam daal lu jëm ci seen wàllum di leen fajak yu mel ni ki doon toppoo leen xëy na nag la ko tax di wax mooy la kaada Boy Bambara wala mbirum Boy Bambara bambara keneen koo xam ne moom mu nga ci yëglikaay ba di xëy di la ko naqari mooy du jaan jekk ko ci solu gii nga xam ne ni daal moom la mbër yi ko faral di soloo te bañ di nga xam ne mooy suñu cosaanu la xëy tey di ko ñii moom ginnaaw ba leen Fallou Ndiaye wooyee ñu def jàkkaarloo yëglikaay bi di caa ñëwaat de muy Farouz ak kii nga xam ne moo di doomu dàngu Farouz ne na ko man day xalaatuma laa rëkki leel loolu toyel ni iyota rek duma ko dellu ginnaaw wala su amee bu keroogee joxe sama xaalis nañu ko dag doomu dàngu ne ko da koy da ngay wax rek yow daal wax dong ngay def man xam naa la yaay jëkk arrière kaay leen ñu arrière bu ma naan wóop ngay dellu ginnaaw kenn koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci mu moom itam day mu ngay wane boppam muy Fatim Dabaax nekk ci rajo bi nga xam ne moom la ñuy wax day Far FM mu mel ni ki moom day yëglikaay bi jàpp ne ne mu nga ca kaw aaram nag ca sommet ba daal wala ca yemukaay ba ca njoboxtal la mu nga ci def liggéey bu mucc ayib sunu làmb xëy tey wax nu ko waaye li xam ba des daal mooy fii nga xam ne ni moo doon ca daje Fallou njaay ba amoon kera ca parcelle ginaar ya mu tegoon ak ginjër ga sunu làmb xëy tey wan ñu Sëwru Fall moo xam ne day manaat sebe rey na boppam kera ca ginaar ya ñu ne déet ne waay Sëwru Fall jàpp ginjër ga def ca loo xam ne nii lu doya doy waar la man nag li may laaj Sëwru lu mu dégg ci ginjër ba kera la mu ca naan mu toll ci ab litre taala Ndiaye taala lu ne ci ginjar ba sawru faal mënat si naan ci lu toll lii litre waaye tey jii Talla Ndiaye jàppalati date bi tey la ñu ne ci lan mois de mai la ñu ne vingt neuf mai la mercredi tombeek anniversaire ab Ablaye Wade ñuy waxe fii ci point un ci ginnaaw këram kon góor gi Wade yàlla na nga gudd fan te wér waaye yàlla na ko yàlla defal ñëpp quatre-vingt-treize ans lay feete laay Wade africain pire a ngi noonu Talla Ndiaye kon mbokki Leewtoo TV comme ni ngeen ko xamee rek ginnaaw bi ñu defee revue bi ba comme ni ngeen ko tàmmee di ko amee xam nga tey nag dañuy ñëw ak yéen xam nga rek ci mbirum waaw jàngat sax laay wax wala nuyu leen tamit wala remercier leen rek comme niñ ko xamee parce que li may wax rek su dul woon ak yéen la yaakaar naa dara du baax yéen internet yi nga xam ne yéen ay topp Leewtoo yëpp à travers le monde fu ngeen mën ne ci aj ci ci àdduna bi dañ leen di nuyu rek balu leen ak ñaanal leen jàmm et di ko sàkku ci yom Talla Ndiaye comme ni nga ko xamee nag tey kaw yëglekaay bi li ñu ci gis mooy tafaatin buy tontu wala Serigne njaay buy tontu mel ni ki tey tontu yi ñoom Pikine lañ ko jëmale bu dee la kaddu Serigne Ndiaye la moom mu ngi wax ak nga xam ne mooy Eumeu Sène wala Ama Baldé sax waaw moom jàpp la euh, la mais li ñu ci mën a jàngate mooy que ni bu la cas de Ama Baldé la comme loolu mu wax loolu xëy na dama ma naan Eumeu Sène sax ndax duñ bëree mook buñ ne mook tafaatin buñ ne mook tafaatin ñu ne revanche jaadu na moom Ama Baldé ñu ne mook Bombardier combat bu bees jaadu na combat jànq mook Gris Bordeaux noonu moo Modou Lo combat jànq jaan xëy na liggéey la mais nag comme li ñu wax rek Serigne Ndiaye tamit mbërëm la am te da koy défendre jusqu'au bout waaw comme li ma wax diggante mu Eumeu Sène tamit ne sañu ñoo dox sañu dox ci seen kaw ah loolu tamit dañuy yónnee yàgg rek xëy na bu ñu ci yeggee waaye li ma xam daal diggante Eumeu ak Modou moom ku ko ci yomb kenn ku ci ne ci ñoom ñaari mbëri kuñ ko ci yombal rek boo ko ñàkkee kala ko yombal moo la ko xaj parce que combat bu nara metti lay doon ndax ki ne buy ñëw dina ñëw si beneen ñëwin moo tax mu nekk combat boo xam ne dina metti lool ki nga xam ne moo kon yàlla nañ fi yàlla bàyyi le 28 ba le 28 juillet incha allahu rabi ñu tal ko te fekkee ko bu dee beneen combat bi des la tamit wala boog beneen mbër bi des muy tafaatin xëy na tey wax ci kaw ci Zil Balde jàpp na ne moom code la ko jàppe wala nanga mais nag des fois day wax wax yoo xam ne ni moom day jàpp ne du wax yu tege ci aw yoon waaw loolu nag làmb la rek waxi làmb la communication bu làmb la parce yaakaar naa ne ñoom ko a mag la ci làmb kilifa la waaw yaakaar naa ne daal mais nag li may wax rek wax ji moom ak lu mënta xew rek nañ koy cadre ci sport mu rafet dafay am solo trop su loolu amee moom li ci des moom taala yaakaar naa du bëri jafe-jafe quoi su mbir yi rafetee waaw parce que comme li may wax rek euh, <laughs> ñaaw a gën dee rafet a gën la ca des waaye baax a gënit la ca des waaye tamit taala tey xam nga ni nga ko xamee 29 mais la tombeek anniversaire suñu maam Abdoulaye moom mu am 93 ans ñu nekk fii ci ginnaaw këram wala ci côté këram tey léewtoo toxu sa fi bu yàggul ñu koy ñaanal yàlla moom Wade tamit yàlla guddal fanam wéral ay cëram ko bépp doomaanam parce que loolu mooy que ni ans def na fi ay liggéey yoo xam ne tey bëtti Sénégal yëpp a ngi ciy tege muy koo xam ne am na mérite nekk africain pire xëy na matale lépp nag yàlla moo ko man moo ko jagoo waaw mais li ko waroon xay na def na ko ki ko wutu tamit di président Macky Sall mu ngi ci lancé boobu moom itam ñu koy ñaanal yàlla ay mandat mu tërni na ko mu jeexal ko ak jàmm te mu nekk bonheuru sénégalais yépp di wax nekk daal Talla Ndiaye lépp lu waaye di def lu ne nay doon dëgg moom booy jaay Dakar sax woykat ba noonu na ah na nga ci am fulla fulla mooy lan dëggu tey dëggal taala ñu gën a fonkante parce que tamit li tax ma wax loolu mooy bu Ablaye bi ma tudd yaakaar naa ku mel ni Waré Sarr seetaan nga ko bi quartier général am na nu mu waxee ci moom am na tamit fidélité bu muy wane ci moom chaque jour parce que li muy a jàngate mooy nit ki ngay àndal àndal ak moom te yàlla tax di ko wax dëgg te yàlla tax bañ koo war ci biir yi wax bañ a njuuj njaaj biir wax ndax loolu bu ëllëgee bu juddoo la muy jur day indi bañante ak jéppante te loolu dara jaru ko moo tax looy def rek taala dëggu ca sa digganteeg lébu dëgg a ko lal yàlla na dëgg a gën a sax diggante baabar ak teneg noonu diggante xam nga Eh, ndongo faal sama waa ji si Italie ak soxnaam noonu keneen ak keneen noonu kon ànd yëpp yal na ko dëggalal ñuy waxante dëgg ngir ëllëg bu ñu jàkkaarloo du mën a am mais di nuyu internautes yëpp du ma leen fàtte Khadiros Ndiaye séréer bu ñaawul bu ñuul bi ci Augsbourg maa ngi koy nuyu Allemagne di nuyu tamit tuuti yaay Sarr di ko wax mention spéciale di nuyu gars yëpp ñoom Elas Ndour Benzema dem fàttewuñu kenn xam nga Mbacke Kébé duma leen fàtte di nuyu tamit sama waa marché waa marché ti leen dañuy def tey ndogu Talla Ndiaye parisol ba fa ma doon jaay dara du du mat moo tax tey duma jëli kenn ndogu tey moom damay dem rek organiser taal café séddale taala lool laay def tey mais di la wax ne kontaan naa ci yow trop trop trop taala Njaay xol bu sedd yaram bu sedd